parle de franc CFA ñu mënuñ tëb génne franc CFA aujourd'hui ma jox la un exemple le jour où un homme du gouvernement taxaw ne dañuy génn ci franc CFA bi yow dërëm yu ngay am CFA bu nga am banque danga ko fay jëlee toutes les banques ce jour-là dañuy daan maintenant boo nekkee ci biti dañ koy wax et franc CFA bu ñuy wax aujourd'hui moi je pense que c'est l'une des meilleures monnaies parce que le franc CFA c'est pas une monnaie pour les politiques gisoo benn dëkk mhm. gisoo Biden gisoo Macron ñuy wax sur la politique monétaire ça appartient aux opérateurs économiques et li ñuy wax si France <coughs> moo garanti et tout mais le franc CFA est garanti par 32 pays mhm. il y a 30 France lañu yëpp en fait France il y a 32 <laughs> comptes d'opération mhm. yoo xam ne franc CFA parce que pour ñu def des transactions il faut ñu am des comptes d'opération ailleurs des garanties ailleurs maintenant moi je suis un fervent défenseur du franc CFA pourquoi je me dis que loolu li ñu tubaab yi sax tubaab yi seen bopp. Mhm. loolu lañ loolu lañ ñu copier parce que bu njëkk ba en France en Europe y avait le frelon y avait le, le la lire italienne. Mm -hmm. le franc ba ñuy bëgg def en 2002 leur leur monnaie mhm. européenne mm -hmm. l'euro ils se sont inspirés de du de notre monnaie. Ouais. Mm et ce qu'il faudrait encore. c'est dire l'euro en fait. oui oui le CFA a inspiré l'euro. Mhm. et je je dirais plus par contre aucune œuvre n'est parfaite. xëy na yaatal ko au niveau africain wala bu mënul nekk sax. développer plus de pays peut-être. moi je dis qu'aucune œuvre n'est parfaite. le franc CFA doit être réformé. mais munoo tëb rek ana ñu fi yoroon ay mobitu ñu fi créé woon hmm, monnaie. Hmm, mais monnaie et et et je j'avertis les gens on ne crée pas la monnaie pour avoir une économie forte. Hmm, on crée la monnaie lorsqu'on a une économie forte. Ah,